asalaamaaleykum asalaamaaleykum sama waa dëkk sama waa réew eh, Kaolack fii ma nekk tey ci Kaolack eh, hôtel ajana eh, may ziar waa dëkk bi yëpp rawatina na Baye Niassène Kaneen maa ngi leen di jaale man Bakane Seck ci kuñ sunu kilifa gi génn àdduna làqu muy Sidi Lamine yàlla xaree ko ci àjjana ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jégal ko ay bàkkaaram euh, yàlla xaree ko ci àjjana yi gën a kawe yàlla na ko bàyyi teeru ci barki Seydina Muhammad et may partager njaboot geek famille bi yëpp nag naqar wi maa ngi leen koy jaal euh, di ko jaal ñëpp am na ñu ma jot ci famille bi ay doomam vraiment waa Kaneen mbiri na bàyyi maa ngi leen di koy partager ak yéen métit bi di leen ko jaale yen ñëpp ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ko jaare waa Walfajri di ko jaare waa TFM di ko jaale waa 2S di ko jaale waa Sen TV di ko jaale ñëpp képp ku nekk ci presse bi maa ngi la koy jaale jërë ngeen jëf merci beaucoup